mbokk yi di teewlu xibaaru Bambouck dal leen a jàmm ci seen tënkum xabaaru bés bi. Euh, niki dimanche fukki fan ak ñeent ci weeru ut bi ñu génn euh, kuréel googu ñuy dippee convergence pour le développement euh, du Koungheul amaloon nañ seen bés bi nga xam ne dañ koy def at bu jot te mu jëm ci wàllum jëmbat garab fii ci gox bii di Koungheul. ñoom nag ñi ngi ko amee tàmbalee ko fële ci buntu commissariat de police bi nga xam ne bañ ko inauguré yàggul fa lañ daal eh, samp seeni garab yu njëkk ci teewaayu maire bu Koungheul di Alioune Badara Ly waaye tamit ministre secrétaire d'état di Mayacine Camara ak ki nga xam ne mooy eh, commissaire bu nekk ci eh, commissariat bi ak ñi nga xam ne ñooy bureau convergence pour le développement de Koungheul ñëw nag euh, si kàddu euh, président bi di Abdoulaye Mbaye gis nañ ne ren euh, daal dinañ am réussite bu baax ci organisation bi ndax non seulement daal dinañ def li nga xam ne mooy reboisement bi maanaam jëmbat garab waaye fexe nañ tamit ba ñaari doomu Koungheul yi nga xam ne dañoo xawoon jiwoo muy maire sortant bi ak maire nouveau maire bi ñu daal di nuyonte saafonte te loolu jàpp nañ ne lu am solo la te askanu Koungheul yëpp daal doon nañ koy rafetlu ci mbir moom ñoom nag seen euh, troisième édition di projet boobu ñu dippee Koungheul euh, ville verte euh, fas yéene nañ ko wéyal ba naatal li nga xam ne mooy goxu Koungheul ñu des si euh, jàkkaarloo taskati xabaar bi nga xam ne responsable politique euh, opposition bi nekk fële ca faskati di Lamine Sall amaloon na ko euh, doon yëkkati kàddu daf bilan ci législative yi nga xam ne weesu na te mu nekkoon candidat suppléant ci liste nationale bi moom nag ak ay nitam dajee woon nañ fële sa Fass kenn doon waxtaan ci lu jëm ci seen avenir politique waaye liñ mën a tënk rek mooy fas yéene na woy di des ci euh, opposition bi ndax jàpp na ne ànd ak le président Macky sàll du solution ndax gis na ne dund gi dafa métti euh, waaye tamit jàpp na ne euh, lépp lu leen waraloon ak président daf nañu ko waaye gis nañ ne seen gox bi dafa dellu ginnaaw bu baax amul benn projet phare boo xam ne yëkkati nañ ko fa ngir jàpp na leen. moom tamit gis nañ ne ki nga xam ne moo doon njiitu liste bi di Pape Diop daal di dem fekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar moom nag daal dina koy ñaawlu waaye jàpp na ne moom. moom du dem day des di wéy di ànd ak ki nga xam ne mooy professeur Aliou te fas yéene na samp ndëndam ni ki vingt 2027 ngir daal di laaj li nga xam ne mooy commune bu saali Escale waaye lépp rek fas yéene na ko def ci euh, opposition bi. ñu ne si distinction bi nga xam ne daal dinañ koy jagleel ki nga xam ne mooy professeur Massamba euh, Guèye muy euh, prix boo xam ne muy citoyen d'honneur boo xam ne daal nañ ko koy euh, jagleel te loolu collectif bi nga xam ne mooy Bienvenue Sénégal te Papis Niang daal di koy jiite. ñoo ko ko daal doon euh, tabb moom nag jàpp nañ ne euh, kàddoom ak intellectuel bu mu doon yàgg na bégloo askan bi rawatina ba mu nekkee fële rajo Sénégal international di anime émission boobu di euh, conte et légende moom nag prix bi nga xam ne daal dinañ koy jox mu ngi amoon ci bés bi nga xam ne lañ dem présenté film documentaire bi nga xam ne dañ koo jagleloon bu jën muy plat local national bu Sénégal boo xam ne dañ ko mujjoon inscrire euh, ci euh, ci patrimoine bu UNESCO. moom nag gannaaw bañ ko décerné prix boobu kàddu yi mu yëkkati rek mooy euh, gis na ne liñ ko defal rëy na ba tax na amul lenn lu mu ci mën a teg lu dul di sant di gërëm ñi nga xam ne ñoo ko defal mbégte mi. ñu des si wàllu tàggat yaram ak phase nationale yi nga xam ne ci la ñu nekk démb nag ñu daal di koy tàmbale fële ca Ndakaaru Koungheul nag amoon wala boog région de Kaffrine amoon ñaari équipe yoo xam ne ñoo leen fa dem teewal. muy walidaan bu cuntoo ak ay eh, ASC garab gi bu Koungheul ñoom ñëpp nag gis nañ ne eh, seen dugg see am na solo ndax boo jëlee walidaan bu juntoo eh, mu ngi dem peseeg noo déggoo fële ca stade Ngalandou Diouf bu Rufisque daal di dañoo témboo ku nekk ba am benn bal ci dara te gis nañ ne doomu Koungheul bii di si Pape Cissé doon football walidaan bu juntoo moo daal di dugal bii bu njëkk ci tournoi bi garab gi ci beneen côté bi tamit moom dafa daal di tenir en échec R100 nga xam ne moom ñëpp jàpp nañ ne mooy favori te mu nekk fële ci Thiès ñu daal di def match nul fële ci stade bu Mbao donc li ñu mën a tënk rek mooy ñaari ay si yëpp seen tàmbali euh, baax na xanaa di leen ñaax rek ñu gën a euh, góorgóorlu ngir ko seen euh, mat yi di ñëw ñu mën cee àndoom ngir mën a am xalaat qualifié génn ci phase de poule xibaar xibaaru bambu dinañ leen ko toppal mooy bépp xabaar bu fa ñu daal di koy jagleel askanu Koungheul